waaw salaamaaleykum mbokki Thiès Nord eh, fii ñu nekk nii mooy école Petit Thialy école bi nag moom ku ñu wax ni sa doom fi lay jànge eh, war ngaa tiit war ngaa ragal moom xam naa ni du xam-xam lañ fi jàngale sa plutôt ay feebar war a mën a jëlee pour une école publique sénégalaise bu ñu wax ni dañoo war a créer le meilleur sénégalais le meilleur citoyen te ci école lañ koy former loolu nag c'est un constat global parce que ñun gis nañu ni ci commune bu Thiès Nord il 6 a CM ak 18 écoles élémentaires mais euh, préoccupation fondamentale c'est que ci am écoles yi quasiment presque li ci ëpp ngi dox système double flux bu loolu weesoo tamit euh, solution yi ñu bëgg proposer ci lolu des constructions en hauteur parce que parfois écoles ont une possibilité d'extension en largeur ou d'extension en longueur lu melni bo démé madna fal fi amna fa y' a pas suffisamment d'écoles parce que système double flux bu fekkee construire en hauteur c'est parce que li ñu am possibilité tabax yeneen école amatul ndax les promoteurs immobiliers accompagnés par des autorités ñooy nangu suuf si des école scolaire ñu pour ay pour ay préoccupation ñun ci solution yi nga en hauteur bëgg nañ renforcer par des cours manam jël ay répétiteurs yo xamanteni dinañ jëlaat xalé yi di len renforcer ci ay cours bëgg nañu indi comme autre solution euh, les manuels scolaires commencer wat diko joxé gratuitement en distribuant également euh, cahiers yeeg bic yeeg livres yi. bëgg nañu en même temps créer ben centre de reprographie manam centre de reprographie njëriñam moy tous les ouvrages scolaires yi nga xam ne dafa yàqu jëru jëriñoo wuñ ko amna fi dans le cadre d'un projet bu fi existé woon qui n'a jamais débuté d'ailleurs ay jeunes yu ñu formé won pour ñu liggéey ci loolu municipalité bu Thiès Nord décidé na bu fekké ñun Nous falu lañ leen jëlaat waat leen dans le cadre du centre de reprographie nga xamni examen devoir composition du soxlaati enseignant di laaj parents d'élèves muy cotisé le centre va produire tout ce qui est documentation pour les examens pour les devoirs et pour les informations nécessaires aux élèves et aux enseignants. donc ci ci ci walu woowu liñ Nous ci bëgg a wax mooy euh, njàng mi qualité dafa wacc donc liñu bëgg andalé moi, le culte de l'excellence dañuy jël un comité d'experts composé d'enseignants composé de parents d'élèves composé d'inspecteurs de l'enseignement mais composé également de personnes qu'on aura choisies yoo xam dañ leen tànn ci biir municipalité bi ci dëkk bi ñu nous a toog ñu définir conditions yi tax ñu mën a école bi gën a xarañ jàngalkat bi gën a wala wala wala wala jang euh, élève bi nga xamanteni ni bi moo xarañ ñu jox leen nak ay subvention ay bourse ci walu woowu pour jàppale leen ci bëgg indi wat cantine scolaire ndax dañoo seetli euh, xalé yi